yàq suñu trop trop trop ma ne ko wan ndaw. li nga sañ nga rafet na. merci. ma ne xam sama sang ba moo ma bëgg moo ma jëkk a jox météo booba météo xew na tee. bu daan déglu rek ñaari baat boobu dama ni gànnaar nii rek lay mën a mel tey mën a baax. itam danay tuur rek ñu góob. ak ma jooja jaay ngol fa reewa kumba gay ak baabu maayaasin sama ma daan war limbu sali joor tay bañ gawar war limbu sali joor jeel bu ma saan suñu gaw ak war limbu sali joor xaajub jaal caam ba dal na biri ma xutta mbaaw ak lëngul caam su kër maam wurus jaay ba lool noor lay wàllee bu ñu jéng doo ci dem kon gaan na day mën a baax kon gaan na day mën a baax Fatimé rek lay dem Serigne Touba waaw Fatimé rek lay dem faati dëgg la Serigne Touba Mbacke yow rek la ñu ba sama yaay demee léegi ñaar fukki at la juróom ci suuf dëgg la ko wépp li ma ak ay dëgg Touba de sa ndaw mu do la gëni nak ak faati gay jóob nii dem jarbaat ca kër ga dëgg la tubaar fakal la masallah ba mu demee ba ñu demee ba nëgën sii nag ñandeem yàkkamti yóbbuwu leen waaye ñi fi des bàyyi lànk ba wu leen fi te am nga faati mii li ngay wax ñor na ma Babel doxal ñu dem. ah waaw la yónni ma di ko waxal. dëgg la yow Fatou Thiam boo yónnee ci gone yi danaa sawar. ndax ba ngay tuuti nga fa wàccul te amul a def. nga ànd fa ak nag gor yu ya. ya liggéey liggéey bu rafet bi ba dem ca jëppuur la. gànnaaw Fatou Thiam nee mi ngi sant yàlla ak yonent bi ndeyam ak baayam di sant. doomam yu baax yi nga xam ne tubaarkàlla seen ndey danoo dem rek bàyyi yoon ñoom ah, nee ñu téye ko nag ñim téye woon seen i ndey jàpp neen ñim jàppe woon seen i ndey bëgg nu mu wuti dara bëgg nu mu wax dara bëgg nu mu jàmbat dëgg bëgg bëgg nu mu di jooy dara gànna ca am na ca àll ba ànd ak papa kare ak rakkam tubaarkàlla macha allah nii la bàyyi ko benn yoon. nee dara ca néew leen dem ba ca Fatick. du wax ca néew leen dem ba ca Fatick. nee na tubaarkàlla macha bintu kare mii nag du naan ndox sax ca néew nañu Fatick leen. na dem rek yóbbu nañ ko. li xamee diggante Touba Njaareem. yàlla ak sa yéen a tax. barke sëriñ Tuba ma di leen ñaanal seen ànd bi yal na yàgg yal na yàgg te sax bu ñu am yaa ca kër bu ñu am yaa ca kër. lu ma xaw la bu ma leen ko waxee ñu dëkk bu ba caawa jong mi. billaay dëkk bu bu dëkk paa fekk ma. dama ne la waxal ma. Faati Gaye ak Awa Jong. lii ñetti keesi ndox la. lii juróomi keesi. ku lex sàll bàyyi. continué rek si bàyyi. lay wax ñaari kees. jaani buur ñaari kees kanam ñaari ndox bu kenn dogalewaat bu kenn waxaat lii ngay gis gannaaw bi moom. jooje caam. ay bébé caam la. ko kenn jëlee leen seetaan. soxna may mu jéeme kare ak ceerno kare sama rakk jooju di déeyoo. teg ci ñaari sa sa ndox. waaye awa Thiam mu ndoy Diop ak Serigne Bari bi tey ku baax koo ki nga xam ne tubaarkaal la nag macha moom dootuma wax ci moom dara Serigne rek laa wax. barki Serigne Touba moo joxe ñaari kees yi ak ñaari sase ndox yi tubaar fakkaal la dama moo joxe ñaari kees yi ak ñetti sase ndox ak ñaari junni.

defelaale. defelaale defelaale. maam jaara day def nii. maam jaara def nii. 10 000. ci maam jaara yaayi xaadim. yal na ko làmbam yal na ko làmbam. Dek Babacar Khady Diouf sama taaw Khady Diouf taaw dama ne la Khadim Say Say bi tey Khadim Say bi tey Khady suñu taaw suñu taaw yal nañ ko yendul dimanche yal nañ ko yendul dimanche moo joxe junni bi moo joxe junni ak xeeb bu ñuy joxe boisson ñuy joxe ndox ñuy joxe xaalis ñuy joxe xaalis tubaar fakal la sama doom yi may seen yaay bokk naa koy jur wala baay waxtaan ak ngeen ko ci barki dem seen yaay yi samay rak lan dëgg la waay def naa ko Khady waa Khady suñu taaw yal nañ ko lang

awa caam awa caam awa caam na may bokk ko ci laam nga doomi naar caam doomi naar caam ndax sakal la moo joxe junni moo joxe junni moom itam mbokk ndey koy jur ma ca wala bu ko neex a boot moo joxe ñeenti téeméer maam jaara ndaw joxe na ñeenti téeméer maram jaañ maram jaañ

Baye Dégay docteur Baye Dégay nga xam ne saa yu ñëw saa yu ñëw day dangay di gis maa dëgg la day xoti di gis maa surtout eh. day sonn na ba sonn ñëpp ko teeso ba dama ëpp rek di nag ñu ñëpp bon balaa yaa max ci am mu daba mbaw mi yàlla ko langal ak ci suñu càmmiñ li yow da nga ñëw rek ñam rek nga dagal ci ñambaas te ca wax waaye yaa ñambaas mu xot maa la ko wax de dañoo dagal di gis naa macha ñun ñëpp. ngeen bokkule hôtel. na ngeen ko dox dagal di gis. waaye lu baax kenn du ko doxi. lu baax de kenn am sa dimanche